بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 laa hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo santaat sunu borom tabaraka wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu boroom gën a yàggal lool te gën a dolli ak wéram te defal ko mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa gi topp ci ginnaawam gépp di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloog ñun ci seen télévision Lamfal TV ci émission bi nga xamante ne bii ñoo ngi ko fas yéene seq ak kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa yi di kenn ci taalibey sëriñ Saalihu Mbàkke di jëwriñi Xudaamul Xadim di sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu Cheikh Abdul Ahad mbakke ñu di ko ziar di jaarale ziar boobu ci moom di siyaare sëriñ Sidi Mbàkke di jëwriñi kër Cheikh Abdul Ahad Mbàkke waaye di jëwriñi mboolem taalibe boo yaakaar sëriñ Saalihu ginnaaw bu ñu ko siyaaree noonu la ñuy rakkam di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Saalihu ak mboolem njabootu sëriñ Saalihu gépp mbokk yi ñu am mbégte ti ànd ak yéen ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor di bis bu tedd ci weer wi fas yéene fàttaliku jàmbaari lislaam fas yéene fàttaliku yarekat bu mag ba fas yéene fàttaliku jàngalekat bu mag ba fas yéene fàttaliku ka dëdd woon àdduna ginnaaw bu mu ko settantalee ba xam léppam di sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke yàlla nañu ko yàlla fayal ñu ci dalal nag sëriñ am Amsatu mi nga xam ne booy juróom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw bu mu ko tuddee sëriñ am Amsatu Jaxate joxe ko ci daare alquran mu jàng alquranul karim ba mokkal ko mu yóbbu ko ci daare sëriñ Cheikh Jaxate ginnaaw bu mu jàngee xam-xam ci dëkk bii ba suñ borom dimbale ko ci lam ca war a xam lépp mu xam ko sëriñ bi nag tànnal ko ab sëriñ yóbbu ko ci daaray tarbiya sëriñ bam ko tànnal di sëriñ Saalihu Mbàkke moom lañ fas yéene waxtaane tey jii ngir waajale ko korite gi kon damay bàyyee kàddu gi ak sëriñ Amsatu mu nuyoo ak bokki taalibe bi asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Fallu mm-hmm. ñu ngi lay fay mm-hmm. yaag ñi nga àndal mm-hmm. di am mbégte mu rëy ci ñëw gi nga ñëw fii ngir ñu ballu tuuti ci liñ xam ci sëriñ Saliou mhm. diktal ko bokki jullit yi diktal ko bokki taalibe yi mhm. ngir ñu man cee jariñu mhm. rawati nag koor gi fan yi nga tànn ci koor gi muy ñaar fukki fan ak ñeent te bis bi màgg di bisu alxames nga ñëw ci kër gi nga xam ni mën nañ ñoo wax ni daari yi sëñ Saliou ndax moo ma jox barab bi digaloon ñu liggéey fi ka sëñ gi ak jumaa ji kon day mel ni yaa ngi kër sëñ Saliou waaye yaa ngi daal di sëñ Saliou. dëgg la kon daal ñu ngi sant yàlla baax ci ñëw gi nga ñëw. Mm-hmm. di ñaan dem yàlla ubbi suñu xel. Mm-hmm. leer suñu dënn. Mm-hmm. ba li nga bëgg a xam ak li nga bëgg a jot li mu mën a balloo ci noonu. incha allah ko bëgg. Euh, sëriñ Amsatou euh, xam naa laaj bu njëkk bi rek mooy euh, sëriñ Amsatou ci yan jamono la tàbbi ci loxoy sëriñ Saliou ak yan daara la njëkk a tàmbalee ak muritom xam nga jàng dañ ne tarbiya wa taalim nañuy wax yar ak jàngale sëñ Abdou Lahad dama tudde ndijaayam mooy xamsatul xadim moom moo tax moo to moo moo tànnoon ñu koy wooye xamsatul xadim man jël naa boobu xamsatul xadim xamsatul xadim waaw yëkkati ma 1965 maag daan Mbàkke dugal na ci otoom ënn fi wàcc ma ci sëñ am su jaaxte jox ma ko sëñ su jaxate moo ma dalal jàng moo dalaloon sama baay jàng ba wala sëñ Tuubaa ko dalal ba noppi jox ko ko nu mu yëkkati ñu jox nu sëñ Xamsatu jaxate ngir barkeelu ndax daana wax ni bu ngeen santul yàlla ci seen bopp man sant naa yàlla ci yéen ndax fa sama baay amoon yaakaar ba ma fa laa leen yóbbu sëñ Fall itam daana wax ni ndax maag ay dooma fa nekk ndawoon maag sëñ maam Mor mu ñuul mi Mamor say jaxate ak sëñ Xabaan ak sëñ Aliyu ak maam sëriñ dégg naa ba leen fa sëñ Fali wax dane du ma kooka du ngeen ñooña du ma sëñ Tuubaa du ngeen du ngeen ñoom sëñ Abdu Lahat waaye nag sëñees naa barkeelu moo taxoon ñu indi kon fi ñu indi fu ñuy barkeeloo foo laa jàngi alxuraan sëñ am sëtu sëñ Cheikh bi ma daalee sëñ am sëtu bi ma daalee ba noppi daf ma jox doom sëñ Cheikh Jaxate moo ma jàngal ba 1974 laa bind kaamil mu jëlee ma fa nag andi ma fii ci Touba ci jumaa sëñ Cheikh Diakhaté moom ma jàngal axdar yu ak tasawudu saxaar mhm. jëlee ma andi ma fii jox ma sëñ As ma tàmbalee ci jawhar na fi laa commencé si As Diakhaté di fa jàng boole kook di dem ko sëñ Sonia ba di fa jàng ak yeneen daar di fa jàng mhm. jàppal ni kon ba 1980 maa ngi cim jàng bi sama njàng pare la ma sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad nag ba may ma soxna sax laay wax belal benn bis ma siyaare ko mu ne ma am sut ma ne ko mbàkk mu ne ma tey jant du sotti amob sëriñ sëriñ Saal bi tam laa la tànnal yëkkati xaalis jox ma ne ma ànd jógal sol sa mbubu ñu dem ci oto taxaar ma ci oto ba ba mu ñëwee falaa fekk sëñ Cheikh Ndiaye mu yëkkati xaalis jox ma itam ni ma jébbalu waale sëñ Modou bi ñëwee ba Touba mu boole ma ak euh, Modou Mamoun Niang mhm. ak euh, Cheikh Gobe bu mu juumale mhm. ak Ibra ñu ànd dem ma jébbalu jébbaluwaale sëñ Modou. sëñ Modou sa rakk waaw sëñ Modou sama rakk. booba mm-hmm. ma nga ma nga ma nga ma nga kowet mm-hmm. sëñ bi defal ko nag yonente bi defaloon Seydina Ousmane. oh waaw dama defal ko ndax Seydina Ousmane am na xare fekke ko yonente bi ko jaayante bi def sajjatu rawaan bi ñuy jaayante. Mm-hmm. yonente moo ko jaay moo ko jaayanteel. bi waaw ne ma na kon defal na yonente bi defal Seydina Ousmane nga defal ko sëñ Modou. sëñ Saliou ma saa itam ni ñuy jébbaloo ma jébbalu nag daal dellusiwaat ci ko sëñ Abdou Lahad nekkaat fa biir nag ci la ma doog a yëkkateewaat nag andi ma ci kër sëñ Saliou ma ne fa sëñ Saliou doog maa jël ci kër gi yóbbu ma njurul bisu nes fu sombaan mm-hmm. bisu nes fu sombaan la ma jël yóbbu ma njurul mm-hmm. ma ne fa di jàngal di jàngale mm-hmm. alxuraan di jàngale xam-xam ba ñëwee loolu laa commencé. kon jàngale nga njëkk a ci daara ji. jàngale jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam. ci njurul waaw. am na ci ñoo xam ne booba xase yi bëriwul foofu si daara ji maa maa ko doon jàngale. ku ñuy wax Moundoy Sarr jàngal naa ko ci xansi téere xansi hmm. sëñ Talla Mbacke jàngal naa ko ci Sall jiite jàngal naa ko ci ak Magu ak ñeneen ñen hmm. ma leen doon ay ay insa osa yooyu yëpp ma kon jàngal booba ci dara ji hmm. boole kook euh, di jàngale alxuraan tamit ba 1900 1986 la ma sëñ Saliou ji la njurul yóbbu ma njàpp nal nag ma seere daara ji nekk jëwriñ ji yore liggéey bi yore lépp rek waaw nga xam ne ci nga nekk jëwriñu daara. waaw ci la nekk jëwriñu daara mm. waaw jërëjëf kon mën nañoo xamee ne yow sam njàng mi ngi tàmbulee ci sëriñ Amsatu Jaxate Amsatul Xadim mu teg la ci loxol sëriñ Cheikh Jaxate mm-hmm. bi sa alliwa jeexee mm-hmm. mu tàmbali la njàngum xam-xam mm-hmm. nga jaar ci sëñ As Jaxate ci jumaa ji ak yeneen daara yi xam-xam yi nekkoon ci biir Touba waaw sëñ Jilim Cheikh Abdoul Ahad ba ni nga demee ci loxo loxoy Serigne Saliou mhm. ci tànnuk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mhm. Mhm. mu indi la ci nag njurul nga xam ne fi nga tàmbalee kon sam njàngale kon tarbiya daa mel ne yaa ngi ko tàmbalee dëgg dëgg ci njàppandal bëggoon nañoo xam jamono jooju ngeen ne ci sëñ sëñ Saliou jëmmi sëñ Saliou mooma mi nga nekkaloon sëñ Saliou ma nekkaloon mooy jëkk sax damay sant sëñ Abdoul Ahad bu baax ci boole gi ma boole ak sëñ Touba santaat ko itam ci jox gi ma jëbbal sëñ Saliou muy sama sëñ sant sëñ bi mi nga xam nag léegi jëriñu ci yoon yi moo tax ma xam ko moo ma teg ci yoon yi ma mën a jëriñoo ci sëñ Touba. Mhm. kon mënuma koo fay. Mhm. sëñ Saliou moom ngay wax nag man na ma ko xamee woon ba bis bi ma koy gis mujjee gis dara soppiku ci. Mhm. doon nituk sariya koo xam ne doo ko jëm fenn ci sariya. doon nituk xaqiqa xam doo doo ko jëm fenn ci xaqiqa. islam ji dafa mat sëkk kër gum tabax daar gum tabax. def na fa jàkk mm-hmm. waxtu wu nodd jotee dañuy nodd mm-hmm. ñu jiite julli mm-hmm. di jàng alxuraan bu wér a wér a wér a di jàng xasida bu wér a wér a wér di bu wér a di liggéey tamit bu wér a wér a lu mu liggéey itam du ci ñam dara da koy jox ki fi nekkal sëñ Tuubaa ci jamono jooju ci jamono yooyu waaw moom booba léegi ci loolu la nekk bi mu nekkee sëñ Tuubaa nag dafa dafa dafa dafa dafa gën a fës waaye lu masaa liggéey lu ku fi nekkal sëñ Tuubaa ma jox ko daana wax nag ne su ngeen gisee lépp lu ñu jox sëñ Tuubaa mën naa ko jëriñoo waaye dama leen a bëgg lu gën a sakkan moo tax su ngeen liggéeyee ma jox ko fi nekkal sëñ Tuubaa boobu sëñ Abdoulaye fi ne bu liggéey ma oh. aw turam la tudd sax moo tax ma jox ko bëggal leen lu gën a sakkan moo tax ma di ko jox sëñ Abdoulaye <laughs> dëgg waaye lu ko jiitu sëñ Fallou sëñ Modou Fall ñëpp lu masaa liggéey loolu la ko daan jox mm-hmm. mu mel ni tarbiya ab cëre ma sëriñ Tuubaa ci boppam moo amoon yéene ci xale yi mag ñi dox diggam ak xale yi yéene jooju ma amoon ci xale nag ki ko motli day sëñ Saaliw waaye ñim ko motleel nag mooy ñëpp la nga bëgg nga xam dañ fee nekkoon te la muy bëgg ñu bëgg ko la muy bañ ñu bañ ko hmm. kooku la sëñ Tuubaa bëggoon def na ko ci ñoom ndax mooy jub ak jubal ak xam ak xàmmee hmm. ak yaru ak i teggit ak i taalibe tey sew laamiñ maa ci li su yoon nekkut de liggéey di jaamu yàlla doonu su gor doonu su julit doonu taalibe loolu sëñ Tuubaa defar ci nit loolu nag sëñ Saliou ñi ko déggal ñëpp def na ko ci ñoom amaa nag ñi nga xam ne dañoo war di wax li seen yoon nekku seen nekkut newoon nañ ci kër sëñ bi waaye seen bopp lañ fa nekk loon hmm? donc dëgg la li sëñ ba li sëñ li Moussa Ka wax nee na ki ne fi man ki sori hmm. tey def li ma bëgg loo sori sori yaay ki jege hmm, waaye ki yi man tey def li li ma bañam loo jege-jege yaay ko sori dëgg la dëgg la jege dana sori waaye sori dina jege dëgg la loolu moom leer na ci sëñ Saliou mm-hmm. ab defarkandoon boo xam daal mm-hmm. ñi ko déggaloon ñëpp defar na leen mm-hmm. ndax mënoon nañu xam jamono jooju sëñ Saliou diggante njàng mi ak tërbiya gi nan la ko daan contrôler moom ci wàllu boppam sëñ bi daara ji toujours mi ngi fi boo génnee ñaari fa ñett sax sëñ bi dana la wut xam xam xam ne nekkoo fi moo tax hmm? lépp daan dox waaw boo génnee ñaari fan ñaari fan dong boo ko bu ma ko masaa Touba bel sëñ bi dana xam ne wu man maa ngi leen am na bis boo xam ne Touba gi laa ñëw fajar laa fi ñëw bi ma ñëw fekk ma sëñ fekk ma sëñ bi ci kër gi hmm. booba njurul la nekk hmm. bisu àjjuma bi ma ñëwee tëdd ko sëñ Touba ci suba sa ma xëyee fekk naa bàyyi jaw ci ëtt mu dima xaar naan ma sëñ bi yow lay sëñ bi lay woo ma ne ko sëñ bi ko ne ko xamal ni ñëw naa fi kon mi ngi may contrôler <laughs> ba mu ñëwee tam ci lu mel noonu lañ doon wax ci tër bi la ci njàng bi li nga laaj ni ma am su daa am loo xam ne mel ni yow dong laa ci laa xalaat loo ma ci wax nag dinaa ko def loo ma digal sax la ma wax xam nga ne sañu ma koo digal dëgg la waaye ak wayeefam ak taalibeem mhm. moo tax mu ne loo ma ci digal laay def ma ne ko loolu lan na mbàkke mu ne ma salaaw dama cee yàgg lool te gisuma ci benn natija résultat daal ëmma ko ci ma bëggoon nag bàyyi njàng mi te doo ngi ci liggéey bi ma ne ko ah, fekk mi ngi toog ci mi ngi toog ci ab mhm. ma ne ko ah loolu sëñ ëpp naa def waaye bi ma ko waxee loolu dafa jóg toog daal di noyyi noyyi ko fort mhm. mel ni dama ko wax neex na ko ma ne ko sëñ bi loolu ëpp naa def ndax doo ngay <coughs> euh, buñ jàngul pini gañ leen di pili rek ñu bañ a dem fenn mm-hmm. donte xamuñu fi araf jar na bañ a bàyyi njàng ndax bu ko nekkul ña nga ci football ba wala ña nga ca pom wala ña ca tooj ba mm-hmm. mu ne wax nga dëgg de daal wax nga dëgg ni mm-hmm. ma nag <coughs> njàng mi dama cee sonn waaye boo gisee nag ma gën cee sonn li wax jimbilang damaa gis euh, wëliis woo xam ne aw kayit wuñu lam amay dol doolu doolu mooy wu ndaw mhm. keroog laa xam doolu ak dimbileeg man xaw ma ci woon dara mhm. dimbileeg mooy livre bu mag bi doolu mooy bu ndaw ba na ci biir waaw ba ci biir mhm. kii xam ne ndaw la woo xam ne sëñ Tuubaa ci bind ni digal naa la nga xamal taalibe yi ku ko ko moom la ko digal waaw waaw loolu loolu ñu bind xaaleyka lillaahi tabaaraka wa taala taalimu talaam ma la xaabile loolu lañu bind ci kayit wa mel ni kon sëñ Tuubaa ko digal loolu moo tax nag mu sonnoon ci lool ne ma ne kon léegi léegi léegi rek loo ciy xalaat ma ne ko léegi de xam naa ci xalaat boo xam ne daal yaakaar naa bu ñu ko defee dana dana njàng dina góor ndax mu ne boobu la la ma ne ko def ci am xale yoo xam ne dañuy daw ngir bañ jàng bay dugg ci nding yi mm-hmm. ak feneen te sama classe gi mën ñoo dugg ci nding di dàq xale mm-hmm. waaye nag am na xale yoo xam ne <clears throat> ndaw ñoo xam ne jàngal nañ leen bañ mokkal mm-hmm. ñooñu dañu yorub les bu ko defee noonu superviser leen bu ko defee njàng mi dana dox te daal xale yi ku ku fu fu ñu mën nekk dañ leen loqati ba gis leen. dëgg la mu ne ma loolu de moom ànd naa ci bu baax a baax. Hmm. kon boo demee nañ ñu sewaat noonu nga nga doxal noonu boo demee noonu laa ñu mu ne ma nag yow bis ni ki tey laa bëgg a yeewal ci njàngale mi wa loo sa coobare ba pare doon. Hmm. waaw bis ko wax. Hmm. ne ma loo ci def sa coobare ndax damaa bëgg nga yoral ma daar yëpp. di ma wëral yëpp. daaraam yëpp waaw loolu la wax ne ma damaa bëgg yëpp bul yem ci daan daar njàpp na la waaye nag boole daara yëpp lu fa lu fa xew nga di ko wër la fa ñëw di ma ko leeral kere bis boobu la ma wax loolu kon sëñ Seydou daal <coughs> kon xamee nañ coocu fi mu tegoon njàng mi nga xam ne kon dafa mel ne soññeeb Serigne Touba boo xamante ni bii euh, euh, suñ borom jaarale na waxtaan wa ci yow bëggoon nañu xamit ci wàllu njàng mi ni mu ko defee woon noonu mbirum njàngum xam-xam mi daa mel ne sëñ Saliou na ko sëñ Saliou lépp la fonk ñett yi moom benn du ci dem bàyyi morom ku war a jàng xam-xam ngay jàng xam-xam ku war da ngay war te boole koog liggéey bi mm-hmm. nit ki xam day làmpale nit ba doo tàbbi ci lëndëm oh. sëñ Saliou nag foofu la lay jaarale ba nga xam sa bopp xam yaay kan mm-hmm. xam li nga war a def ak li nga warut a def mm-hmm. loolu xam moo koy def dëgg la moo tax toujours day bëgg nit ku nite ku nite nit ku moo tax toujours ak nitam mën nga ko gis nii mu woyof ndax mooy def woyof gi ci yow. Mhm. ndax boo gisee sab kilifa mu ma des. Mhm. foog nga ma des. dëkk la ndax doo ko doo gën boo ñëwee fekk mu toog suuf. Mhm. boo boo boo boo ñëwee mu def la ni boppam. ak lim lay jur jur ak lim lay mag mag ak lim lay yilif. naw lay def. loolu nag su ko defee ci yow ëllëg da nga mën a jaxasoo ku ne. dëkk la da nga mën a jaxasoo ñu ne. te bokk na ci. loolu ba ma koy wax sax man man am na am na am na ñaari baat yu ma sëñ bi yare yoo xam ne mhm. booba demaguma ci daal ndax dañoo toog maak moom nii yaa ak sëñ Saliou waaw ci tu fii ci ci kër gi ak benn xale mhm. sëñ bi tesli man defuma ko ndokkeelu ma ko waxuma ko yarhamukallah mhm. waaye xale bu ndaw bi bu tuuti bi nag dañu ko waxal yarhamukallah da nga ko war a wax ci yow ko man waxuma ko man waaw xam nga bëgg na ma man maa man maa ko doon wax dëgg la <laughs> te waxuma ko tey may booba am naa ko ñi wu ko wax ndax boobu damay doog a dugg ci moom xamaguma ko minanteeguñ xam <laughs> nga dëgg la waaw ñëw ko waaw bu dee xale bi yarhamukallah da nga koy wax mat boobu laa ko ñëmee nag di ko wax yarhamukallah allahu akbar dégg nga am yar la waaw yar bi <coughs> benn bi mu ne ma am satu ma ne ko mbàkke mu ne ma eh, yëngatu bu àdduna daa nga ko defa mu ne ko déedéet mu ne ma digal naa la ko di ko def ndax ba ma ci toll dama ko daan def yëngatu bu àdduna waaw mooy liggéey waaw liggéeyanti waaw mhm. yëg liggéey daa nga ko def mu ne ko mu ne ma digal naa la ko ndax man mii ba ma ci toll dama koy def waaye nag bul dem ba fàtte li ci bon mooy dem ba fàtte sa bopp dem ba fàtte sa bopp ba fàtte sa bopp. la ilaha kon kooku bëggul ci noonu mhm. mu topp ci ngóor di daw. Mhm. bëggul ñuy ànd ak ñoom. dëgg la. ndax day bëgg ñu xam suñu bopp. Mhm. xam ki ñu doon. xam li doon. toog fi ñu war a toog. ba lu fa fekk fekk fa. dëgg la dëgg la. loolu la sëñ bi noonu la ñoom ñoom noonu la ñuy defaree nit. waaye fu ne nga daw jóge fa du tax nga am dara. déedéet déedéet jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Amsatou jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi topp seen télévision Lamfal TV. Mm-hmm. tey sëriñ Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad la ñu dalal di waxtaanee jàmbaari lislaam yooyu di sëriñ Salihu Mbacke. sëñ bi dafa mel ne sëñ Salihu bi muy nekk ci daara yi. am na ay xat-xati jamono yoo xam ne daana ko gunge. Mm-hmm. waaye teewul mu daan wettali ko jomam. sëñ Salihu daal boo dee set góor su gore ak nit ku doylu mm-hmm. gëm yàlla ragal ko lool di ko jaam bañ koo bokkaleeg dara mooy sëñ Saaliw allahu akbar wutul dara ngir boppam lu ko masa sonal mooy yan bu rëy bi mu bi bi mu yan te bëggul dara. bi mu yan boppam bi mu yan boppam. <laughs> Mhm. sëñ Tuubaa ko te bëggul dara dàngañ ji. dëgg la bëggul xale yi rafle bëggul ñu xiif bëggul ñu feebar. Mhm. ndax leen lépp lay saytu. Oh. seen col. Mhm. bu bu xottee yére yi. moo koy séddale boppam daanaka. Hmm? waaw yaay ku war a am ñaar ku war a am ñett ku am ñett noonu la koy defal. ay liste nga koy defal. Hmm. yu diis yi ak yooyu fi. yére yu diis ak yooyu. ak yooyu lépp dañ koy dañ koy dañ koy tënk di ko séddale <laughs> hmm? nga jox ko liste bi mu xool mbubb yére yi na mu toll mu jox la nga nga nga jox ko nit bu dee ko feebar. dana fe fexe ba ñu yóbbu ko hôpital faj ko. jënd ordonnance lu mu seer seer. bu dee Tuubaa lañ ko war a fajee mu faj ko fi bu dee daa war a jàll Ndakaar mu jàll sille mi daana faj xale yu bari sille docteur bi daana faj daana fi yóbbu xale yu bari laa ko xamee sax man daana ma faj bu dee ko war a jàll Dakar bu jëkkoon kër sëñ Mor Kebe ñoom jili Kebe dañ daan yóbbu xale yi ñuy bi lañ leen yóbbu ci Seex Béthio kon da daan sonn ci seenum faj bu baax a baax di sonn ci seenum jàng di sonn ci seenu seenum faj loolu laaj sax xasee loolu hmm. laaj. Euh, jafe-jafe yi nga xam ne daan waaw waaw jafe te daan tonkoog jafe-jafe daana jóg sax ndakaar daan toog di lijjanti lu am yónnee ko yónnee ci daal di toog. nga xam ne day nekk ndakaar day nekk ndakaar wala Thiès wala Mbour luñ ko fa jox mu yónnee ko. yi mën a dox. allahu akbar boobu coono yëpp jànkoon na ko moom. te taxul aw doxinam ñaaw. Mm-hmm. wala mu dëng mm-hmm. wala mu tarxiis mm-hmm. waaw xam daal liggéey bi sëñ tubaa liggéey bi suñu borom la yor bu ko sëñ tubaa jaarle ci loxoom war na koo def na ko sëñ tubaa bëggee te xaddu ci dam te ñoom li ñuy jëfandikoo dañ koy set dëgg la lu ceegeen lu ñu la jox rek nga lekk wala nga jox ko rek njaboot lekk xalaatu ko sëñ Sall day taal ni muy jëfandikoo ndax dana ko sa bàyyi dëkkee suul soo mënta suul tam war a xam la ngay dugal ci sa biir lée ilaahi sa bàyyi dëkke waaw boo mënta suul war xam la ngay jëfandikoo wax na dëgg bañ ko sàcc lool nangu dongo bu sàcc dongo bu masa sàcc sax bu ko xamee jàll na euh, jéem koo fay ndax bañ ko sàcc ndax sëñ Tuubaa na sàcc moom gàttu fan ak deegu ñaaw dem sawar ak lañ sàcc gàttu fan ah, deegu ñaaw ak dem sawar dem dem sawar moom la te comme deret sëñ Tuubaa xëy na doon dalu sëñ Tuubaa ba tax bëggul woon ku jël dara ku jël dara ci moom Euh, jërëjëf xat-xati jamono yom mm-hmm. jànkonte naa ak moom da dama lay leeral sax ba ba ci mujj gi nga xam ne gannaaw sëñ Abdalla mm-hmm. am na bis boo xam ne maa koy nettali naa ko dafa ñëw njàpp njàppandal ñuy waxtaan muy wax piix gi ñuy waxtaan waxtaan wu neex nag mm-hmm. ay amet gi ñoom ñëpp waxtaan piix mi neex lool ñu bëgg sëñ bi toog mun nag da ngeen may bàyyi ma dem ndax euh, gaaw bi altine ji ak talaata ak àllarba alxames mën naa ko ni waaye ajjuma gaaw dimanche altine ak ajjuma gaaw dimanche bàyyi leen ma ne ko Touba ndax lu gàtt gàtt dinaa ci am juróom-benn fukki junni yoo ci lay doxal daara yi juróom-benn fukki junni lii la wax keroog seet <laughs> loolu yàggude te it dawaa dawaa iri léegi dañoo xewal bu njëkk si ñëpp daxaar dañu jaar sama kër te gannaaw taxu ma leen jóg nag du ma leen jëlal fekk ma tax ma leen di xaar Touba la ilaha illallah la nga xam ne ginnaaw suñu yëpp daal rek la loolu gannaaw suñu yëpp daal kon nga xam ne jamono naqari woon na responsabilité am bari na waaye muñ na ko yenu na ko ba yan bi teg na ko fa mu ko war a teg. taxam demul gis nga ni dund bi mujj toll te mujj di ko tiim. dëgg la wallaahi. loolu benn affaire la. Mhm. liggéey bu nangu rek la. Mhm. ndax mën nañoo xam ci jamonoy daara yooyu nga xamante ne bii sëñ Saliou moom sëñ Saliou moom daara rek la. Mhm. am na ay nit yu ko daan jàppale ci xeeti dund yeeg wala colug dong yeeg wala yu demee noonu mm-hmm. ndax booba xam nañ ne yan bi rëy na mm-hmm. te noonu mu ko wax ne léeg-léeg ne na day toog ndakaaru mm-hmm. lu mu fa ko ci daara ji wa ilaa samedi ak dimanche mu nekkoon Touba bu fa fore juróom benn fukki junni yónnee ci daara junni ndax booba am nañu ràññikoon ñoo xam ne daanañ jàppale sëñ Saliou waaw moo jaay pàkku lambaay de xamoon naa ko ci moom ku ràññi la woon ay daara yoo xam ne itam daanañ def yu mel ne moom xam nga mujj na sax euh, talibé marché occasion bi ay Ndakaar ku mel ni Abdou Gueye Mourou Sarr ñu bari ak ñoom sëñ Sall Touré ñëpp dañu daan fab seen i bagages indi ci dëkk bi hmm. dañ ci daara hmm. amoon na ci ay jàppale amoon na ci ay saabok yi hmm. ñuy soxla yëpp am na taalib yoo xam ne dañu ko daan andi di ko jox sëñ mu koy joxaat dongay waaye sëñ bi loo ko jox du ko jëfandikoo day xam ni donga yoo ko moom mu jox ko seen borom waaw noonu rek lay defee am bari bari woon na ci amoon na ci ndax nit ñi moom bu ñu gisee nga jëm ci yàlla te boole woo ci dara dañ lay bëgg te lu ñu am jox la ko ngir yàlla. wallaahi loolu mu bari woon na ko lool sax. Mm-hmm. waaw ñu naan mm-hmm. eh, mu mel ne ci biir wax ji nee nga sëñ Saliou maanaam ragal yàlla ca nangu koo jaamu. Mm-hmm. day mel ne lim toggoon boppam ci ak jaamu yàlla ak wattandiku ni mu ragale woon borom nga xam ne Saliou wax ne mi ngi lay digal naan eh, ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ko ak maa ngi tuubal sama borom loolu day mandargaal eh, fu mu teg boromam subhaanahu wa taala. waaw man fi mu teg boroom kawe lu ma ci wax lu ma seqal moom ci laay ci laay misaal mhm. dafa am benn bis 86 moo juumale 86 la. Mhm. wala 87 diggante woon mu ñëw jàppandal. ni ma am sa tumbàkk yoon ko mu ne ma damaa yaakaar damaa tooñ sama borom xam kooku ragal na yàlla damaa tooñ sama ko ah, mbàkk mu ne ma damaa gis yëpp ngi taw te sama tool yi tawut. waaye kat nag damaa def mu ne ko ah, mi ngi taw di. fekk day wis wisal mm-hmm. mu ne ma xam naa ne mi ngi wis wisal nii la def la diir xam naa ne mi ngi yi mm-hmm. waame ne laa bëgg samay tool ko te defu ko ay njàpp na lak mu ne ma ay belal ak ay Louga ak ay ndaar ma nga fay taw yi waame man daa mel dama ko bare sama daal yëpp daal day wis wisal rek ma bëggoon nag nga day la waa kër gi yëpp ñu jàng alxuraan fii nga ñaan taw ma ne ko mbàkke bu dee loolu rek sa law jëlu ko mu ne ma nga ne ma ne ko waaw jëlu ko taw nga bëgg mu ne waaw day taw mu ne ma nga ne waaw nawet day àgg ma ne ko colet barke borom Tuubaa foo ko teg gëm ko rek xam ne ak bëgg ma man duma dara hmm? yàlla mi dara tawut sëñ bi gont talaata àllarba alxamis muy fanaane taw ndeke sëñ bi laaj na daaram yëpp ñu ne ko tooy na ndongo daraame la yebal mu jël si ma bi ma ko jubee rek muy dem ci sëñ Abdou Lahad mu ne ma dugg dem ci waaye nag ma waxoon lépp gis naa ko sama daar yëpp tooy na la ilaha illallah <laughs> li nga wax keroog seetet kooku ragal yàlla. xam ni bëgg ma rek ah. allahu akbar waaye seetal fi mu toll noonu ñi nga xam ne dañuy nekk ci li naqar yàlla ba noppi jàpp ñoo gën a ragal yàlla. seet nga xam nag du def lu naqar yàlla mukk mukk mukk mukk mukk jàpp na dafa mooy yàlla. laa ilaha illa jàpp ne dafa tooñ suñu borom allahu akbar waaw ah, ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooña dëgg la dëgg la kon kon xam nañ fi mu teg boromam subhaanahu wa taala nga xam ne cër bi mu am ci yàlla jëfandikoo wut ba àgg ci yow sax lay wax ne mm-hmm. man damaa yaakaar ne damaa tooñ yàlla mm-hmm. nga xam ne ci ci pas-pasu sëñ Saaliwu ci nga ko dogul ba li mu bëggoon ma am ko waaye da mel ne noonu mu meloon ci boromam it mm-hmm. ni la meloon dëgg-dëgg ci doon taalibib sëriñ Tuubaa taalib ko misaal ci sëñ Saaliwu xam ñu mag ñi dégg naa seen histoire xam ne waaye kii ma dund nag moom mag ñu yóbbu luñ ko dara dara dara tatfatil xëy ni kooku la gondi waaw kooku ci wax ak ci jëf lépp ak taalibe la barke borom ab gendikoom ay waxam ay jëfam lépp sëñ tubaa la ciy seet mm-hmm. jox sëñ tubaa orma yoo xam ni gisuma ko ko jox mm-hmm. ndax fonk sëñ tubaa ba noonu ñi nga xam ne suñuy mooy sunu baay <laughs> di sunu sëñ ñu nekk ci ron di di ko lëggal muy barkeele ci nun oh. di barkeele ci suñu doom di barkeele ci seexi sëñ Tuubaa ak ak doomi seexi sëñ Tuubaa yi kooku gëm sëñ Tuubaa <laughs> ak fonk jeexital sëñ Tuubaa foofu la mën a nekk wallaahi te sëñ tubaa wax ni hmm. mu leer sëñ Abdoulaye daan ko nettali hmm. kenn ku ne dañuy euh, kafteer hmm. bu yàggee ci taal boo ko tegee ci kaw taal bi ndox ma ne ca kaw kafteer ba mhm. bu yàggee ci taal ba mhm. lu taal bi man rek lu lu lu taal bi man rek ndox ma da koy man dëgg la waaw lakk mhm. waaye su teggi koo nag dootu man dara bu yàggee ci suuf dootu man dara déedéet moo tax kenn ku ne lañ defaree sa bàyyi defaree ko sa maam sax ja mooy oh. soo ko bàyyi rek gis nga lu wàññi ko ñëw wallaahi te sëñ Tuubaa dana woon daf ne woon batterie bi du widd ci deretam la ko def muy ñoom sëñ Saliou ñoom sëñ Touba batterie bi rut wit ci deretam la ko def la ko def defu ci bu dut boobu rek mën naa wit bu dut boobu mën naa wit te ñoom ñooñu nga xam duñ wit nag lañ naa rek gis ko la sëñ Touba bëggoon rek fa lañ teg seen tànk jóoye ak moom dëgg la de di ko xëyal di ko gontal di ko guddeel di ko bëccëg dëgg la comme comme batterie bu dut wit nag moom moomee <laughs> te bis bu seen muy si bis bet muy chargé kon nu muy mel dañoo bëri empereur lool moo leeral na leeral na soow leeral penku wallaahi wallaahi leeral kaw leeral suuf dëgg la ah, loolu ko <laughs> la ah, leer ga gëndaloo na dëgg la ah, dëgg <laughs> eh, jërëjëf jërëjëf eh, Cheikh Amsatou eh, am na solo lool ci dëgg dëgg taalibe mu ne mooy Serigne Saliou mm-hmm. ci gëm Serigne Touba ak warmaal ko mm-hmm. ak ak ak jox ko ab cëram mm-hmm. déggoon nañu ne Serigne saaliwu ku ñeme woon addiye la loolu oh. feeñ na ci digganteem ak tabaxu jumaa ji diggam ak Cheikh Abdoul Ahad diggam ak Cheikh Mamadou Moustapha ndax mën ngeen cee dikkal tuuti waaw sëñ Sadio moom addee juy taxaw la addee taxaw mooy mooy sëñ ndax lépp addee la ndax euh, la jiitu sëñ Abdoul ma ci lu bari mhm. waaye li tàmbalee sëñ Abdoul ba bi mu fi xam lépp xam naa ko mhm. kon mën na maa wax ci loolu dëgg la lu masaa liggéey ki fi nekk sëñ Tuubaa la koy jox boo gisee añ yi daan guddi fii ci kër gi itam lu jege ñàkk ab la ndax sëñ bi ñaari junni yu ñu ko nuyoo wala këyitu for da koy def ca la muy la muy dajale pour yóbbu ko sëñ Tuubaa bu dee këyitu mag daal moom du toj. waaw da koy dajale mm-hmm. jël naa mbay mi. Mm-hmm. waaye lañ koy jox rek mm-hmm. da koy dajale pour jox yóbbu yóbbu ko addiya donte doo ngi dañuy xiif sax du ko def sëñ bi daal itam lu mu masaa jox sëñ Saliou sëñ Saliou du ko nangoo jël. déedéet. li ko sëñ Ablaat di jox. du ko dawu ko nangoo jël. fi ko sëñ Ablaat mën a jariñoo nag mooy de lu mu jox naan ko donge laa ko jox moo tax da ko daan jox dund daan ko donge yee ko moom. Mm-hmm. sëñ mm-hmm. kenn jëfandikoo ko. am lu ñu luubal sa waaye da da koo topp ba mu leer. moo tax addi yu taxaw mooy jëmmi sëñ Saliou. nettali naa la. moo ma nettali boppam. Mhm. ca bi leen sëñ Fallou sasee moog sëñ Abdou Lahad ñoom sëñ Abdou Lahad la ko nee na ma yor ñeenti junni yoo xam ni la ma ca fas daa rëy lool te sëñ Abdou bi mu bi mu lijjantee bi mu wëree moog sëñ Sonia bi moom lépp juróom-benn junni nee na maa ngi yor ñeenti junni yoo xam ne la ma ca fas ni mu rëy waaye sëñ Abdou Lahad ne ko jongat yëpp sëñ Fallou boole ko yëpp sëñ Fallou. <laughs> nga xam ne ma ay yittim la ci façon lool. <laughs> waaw ne sa li ma ci fas ni mu rëy waaye sëñ Abdou Lahad ne ko jongat yëpp sëñ Fallou. <laughs> ilaha illallah. neex waaye suñu ko jàmm ndax kilifaama. dëgg la waaw waaye neen sëñ Fall itam bam bañ koo joxee dane mooy asakay déwén dana ma ci déwén de ñeent fukki junni laa joxe moom mi joxe ñeent yi wallaay moom ma ko wax bam mhm. nee ci déwén moo ñeent fukki junni ba mu joxe waatee ñeent fukki junni ba mu joxe waatee mhm. ñeent téeméeri junni la joxe muy 2 millions moom ma ko nettali boppam barke borom Tuuba mas naa ñëw ak euh, ñëw njàpp daal ne ma am sa dugub ji ñor na ma ne ko xanaa ma dem seeti ko ba xam mhm. ma demal seet ko te boo demee fekk mu nga dagg ci ay gub andil ma ma dem dagg ay gub andil ko mu ne waxal daal yi nag ñu jox naa ndigal ñu ñu ñu tàmbalee ñam mbool mi mboolu. mboolu waaw waaw. daal dem nag gis naa ni ne man sa daal yi rek doo moo ci jëfe ndigal na nga wër yeneen daal itam leeral ma leen kenn jëfe ci ndigal yëg naa ni bañ tàmbalee mboolu yàgg na. waaye li muy contrôlé bari na di. te bay lekk ku ne man na ko li wax bay lekk ne ma ku ne na ko. kenn sax tooñ na séeréer ka kal kal kal kal wala fa tukkuloo ak séeréer mhm. ku ne mën na ko séeréer rek koy def mhm. <laughs> kon koo xam ni dugg ci mboolu mi képp mbool képp waaw kooku moom gëm gi sëñ Tuuba nee na ma itam ci ci ci ci ci jumaa yu mujj yi sëñ Abdou Lahad da ko da ko ne jumaa jee de yaa ci manoon muy kat mu yokku jëkk bi ne ko yaa ci manoon ndax boobu yaakaar naa sëñ sëñ Saliou jiitu sañ mu sëñ sëñ Moustapha Bassir topp ca mu ne ko nag damaa bëgg fa nga fa nga yemoon na nga ko weesuwaat ne ko got dégg naa traite bi taxoon na nga fa daal di dem. got traite bi taxoon. waaw na nga fa daal di dem. loolu mooy jaayee sa gerte it ma rek. <laughs> jeex na tàkk <laughs> kooku lépp am addi hmm? la dem gépp <laughs> daay la ah. ku fi nekkal sëñ Tuubaa. dëgg la jërëjëf. même gannaaw sëñ bi daal sax euh, sëñ Abdou moom at mi fi toogee. Mm-hmm. mel at mi toog. 20 millions jox na ko ci addiya. 20 millions ci mbay ma 20 millions. sëñ Soy moom 10 millions sëñ Soy xam nga daa amoon dongo yoo xam ne da koo joxoon. Mm-hmm. lu ma téeméer dongo waaye lu ñu ma saa liggéey itam da koy delloo. du ko jëfandikoo ñoom la koy jox. dongay sëñ sooy bu yooyu dongay sëñ sooy bu li ñu misaal ki li leen beroon. yaa may sonal waaye da sëñ sooy bu. jërëjëf eh, jërëjëf eh, sëriñ Amsatou jërëjëf itam yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp seen télévision Lamfal TV eh, tey jii ñoo am mbégte dalal sëriñ Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad ñuy waxtaane ci jàmbaari lislaam jooju sëriñ Saliou Mbacke sëñ bi ginnaaw bu ñu ñëwee ci digganteem ak ragal yàlla ak digganteem ak bëgg sëriñ Tuubaa ak ñeme addiyaam ak a tarbiyaam ak loolu ndax mën nga ñoo ñëwal tuuti niteeg sëriñ Saliou am xelam ci ak nite. Hmm. ci wàllu nite. loolu moom foo ko takk wees na ko. nit ñu nite ñi moo leen gën a nite. nit ñu nite ñi. waaw moo leen gën a nite. ku <laughs> xam nga kuy fecc li bopp moom ko ne nit nga. dëgg la kuy fecc li bopp kuy fecc li bopp ku ne nit <laughs> daan fecc li ay bopp. <laughs> nite gi xam gi àdduna ba nag ko ndax xam nga boo dee jàng. Hmm. li ñuy jàng li ñuy jàng moom xam-xam kenn mënu ko ci. dëgg la. jaxasoo ak nit ñu ne. Mhm. nit ñu xam ne lépp ci nekkam daanaka euh, ndakaaru mbuur ndar cees la ko doon def. kooku xam ne nit ñi. ko xam nga nit xam na nit tubaab yi. Mhm. xam. niti kaw euh, kaw niti kaw ay tur ay tase rek roq mhm. yooyu nit ñi fi nekk. ak tunju kajoor gi ak tunju mbaagoor xam kon culture yëpp nga jël. niteeg tubaab yi xam da koy xam. ba na pocc ko fële. di dund ak murit pire ak saalix mhm. di dund di dund ak nite mhm. ak murit sax mooy nite nag dëgg la mhm. ak civilisation dëgg-dëgg mooy islam mooy murit te murit mooy islam sëñ Saliou nag civilisation islam bi bu da koo jël ba mu jeex tàkk da koo naan di ci yar nit ñi di leen ci yee ba bu nituk tubaab boo taxawoon sax dana la dana dana dana mën dana a jàngal te la nga te la nga jàng moom nitu tubaab non nitu tubaab bu dee géographe la loolu ci ne da da da koo pekk bi ci xel koom rek nee na nee na ma euh, benn bis directeur OFOR dafaa ñëw mu woo ma ni ma dama bëgg nga gungeel ma ko. dafa am xarit joxal ma ko mu dugal ko ci otom ma daal di koy def ne ma boo noppee nag nga ñëw wax la mu ni ma kii président Abdou Diouf da ko fa yónni ci man di laaj xel koom ni ma ko bëggee. ba dal naa ko ci kayit jaaxaloon na leen lool sax. waaye maa leen ko dal ci kayit bañ ba ba mu leer leen ci suuf si la ko rëdd plan bi mu ko def nga xam ne soo si ak nam tool ak nam yaatu yëpp leen ko leen ko ba ba mu leer daal dina damaa nag ne ma nag maa bind ab Diouf ab leetar ni ko damaa bëgg nga jox ma xel koom damaa bëgg lu jafe sax loo xam ne dafa jomb soo ma ko joxee nag dinaa la sant waaye soo ma xañ itam du ma la gërëm ndax du ma la mere ndax li ma bëgg a jomb day lu jafe si moo nite ba ne ma nag moo fi yebal kii di laaj ni ma ko bëgg naa ko ci daal ni ma la ma sëñ bi waxoon nag damaa kan day bëgg a ñëw ma ne ko lu mu la waxoon mu ne ma damaa joxoon ay matériel <coughs> agricole yi matériel ma ne ko danga ma ciy boole joxal ko mu ne ma ne ko déet bi jox ma ko rek mu koy mu ne ah boo ci dogo de sëñ Tuubaa da nga jox <laughs> ah bi nga waxee sëñ Abdou sëñ Abdou ko ne nii waaw waaw ndax jafe gi xel ko joxal mu ne ko déet moom koy nee ma jox ma ko rek jox ma ko rek mu ne ko ah boo ci dogo sëñ Tuubaa da mu ne ko dogo naa ci mu ne ko kon jot nga ci moo yónni kii kon nag kookee nga xam ne mooy directeur Eaux et Forêts hmm. ñu dénk ko àll bi hmm. nga xam ne eh, plan yàgg yëpp a ngi ci loxoom foo garab ne sax war na koo mën a xam sëñ Saliou la la la baykat eh, di sëñ nii eh. ko ca waaram jàngal ko jàngal ko xam ko kooku xam ne ak ni rek ak xam fa mu toll waaw ah? dafa boole xam ba noppi nit yi mhm. Mhm. jërëjëf sëñ bi bëggoon nañu itam sëñ Saliou dafa bal ne dafa boole woon ay daara yu bari mhm. boole it ay nit yu bari maanaam daara yi nga xam ne yii ña nga kajoor yii ña nga ci mm, eh, boori ndar mm. boori eh, boori mbuur mm. nga xam ne ñooñu xaw nañoo jege. Eh, taax yi yi jaa daara nekk ci biir njàppandal yeneen daara nekk feneen nit ñu wuute ñoo cey ne daara yi itam milliers yi dañuy wute sëñ Saliou nañ la seeree woon xeeti daara yooyu sëñ Saliou xam la waxoon sànq xam Saliou daan nit ki la naqar ci moom da nga bu ñe la neex ci moom dafa mën a muñ danaan yenn lor yi dafa mën a muñ te it nit ku ne am na fukki jikko fukki jikko yi tam da ci seet benn ba nga ci mën a ànd moom nga ànd ak moom. bàyyi juróom-ñeent yi. sa yoon bu jëne. Oh. fi mu toll daara yi li muy bari bari plan yi benn la benn tabaxin la. Mm-hmm. néeg yi benn tabaxin la. Mm-hmm. lim bi ci nekk fukki nit ak ñaar yi néeg bu ne moom moom la daan fukki jëwee nag ñaar doon néeg bu ne am fukki nit ak ñaar. Mm-hmm. boo defee da xam ne daal di ko ko cent wee nangam fukki jëwén ak ñaar douze multiplié par douze cent vingt lay doon multiplié douze cent vingt cent quarante daa ne cent quarante personnes moo ci nekk mooy lim bi nga xam ne mooy normal léeg-léeg ko ëpp dongo yi restaurant noonu la ko noonu la koy calculer moom dafay xam nagee nañ koy séddalee dongo yi dañuy dëkk lépp da koy leer moo tax doxin bi yomb gouvernement roon boo xam ne dëkk la moo ko yoral boppam ki nekk got ki nekk fe ñoo bokk li ñuy lekk ñoo bokk li ñuy naan du dem dem ba ci biir dëkk mu dafa daara day beru na ko sëñ Tuubaa daan defe ah, du dëkk ci dëkk yëpp daara yooyu gis got daa nekk ne dëkk ba daa nekk ne mu nekk ne njàppandal dëkk ba daa nekk nekk njurul dëkk ba daa nekk ne mu nekk ne mhm. lagat noonu dëkk yëpp da koo ber noonu noonu la ko def dafa dafa beru ci biir dëkk bi mhm. ndax booy defar ne doo leen booleeg mbooloo mu bari moo xam ne bokkuñu jikko ñu jaxasoo mhm. te it bëggut ñuy dem fenn bëggut ñu dem ñeneen ñi ñëw ci ñoom comme ñu muy bëgg ñëw ci ñoom mooy nit ku tërbiyewu ba wàcc wala ku mokkal alxuraan wala nit ku am xam-xam ñooñu lay bëgg ñu jaxasool hmm, ñoom dongo yi waaw waaw day bëgg ñami ñami jaxasool même lekk sax fi mu hmm. am na ñu ña mbokk alxuraan lay lay berne ñu ñuy bokk ñeen ñi si dem kii am ngërëm xaj na mu boole kook ñee hmm. am redwanu laay mën naa mu boole kook mu bokk ak ñi ñi waaye loolu loolu seen ndaw bopp lañ leen sëñ daal noonu la ko doon doxale lu ne da koo nose jërëjëf ba tey ñu ñëwaat foofu rek mm. gis nañ ne sëñ Saliou tudd nga ko ci biir njalbeen gi yéen ñi nga xamante ni bii ak njaboot rawatina ñi fa nekkoon sant Mbàkke mm. am na nu sëñ Saliou doon jëflanteek ñoom loo xam ne danañ xam ne pas-pasu sëñ moo tax waaw man naa la sëñ moom dafa fonk sëñ Tuubaa lu bokk ci moom ak lu taq ci moom bay barkeel ñoom lu jaxasoo bi bari bari bari day bëgg nag ñu bokk ci sëñ Tuubaa ñu jox leen seen cër bopp. allahu akbar ndax am na uh, ko ci bokkoon koo xam ne uh, ci njaboot sëñ uh, Tuubaa jur baay wala ci sët yi ci bokk njaboot yàlla li mu bëgg a wax. Mm-hmm. dafa waxoon doog ne ngeen moytu nag di ko toppandoo ndax bu ngeen ko toppandoo mën naa feey yéen ngeen dig. oh. mën naa fay yéen ngeen dikk. wax na dëgg de ah. kon kenn ku ne di laan jox sa cër ak sa wàccuwaay. Mm-hmm. day am loo xam ne sax euh, day ëpp wax <laughs> wax naa ko ba taay waaye jëlul yàlla sax waaw. Mm-hmm. <laughs> jàngate ndax jamono ñu tëdd la. dëgg dëgg la. <laughs> ndax ñoom euh, bu ñu lay dimbalee dañu lay dimbalee ba gën a leer ndax day mel ni dañuy xam sa mustaqbal euh, xam ni nga war a jaxasoo ak ñi nga war a àndal. xam nga mm-hmm. balaa loo ñëw ñoom dañ ko gis yàlla ci. wax na dëgg. ba soo ñëwee du am problème. dëgg la dëgg la. ma mm-hmm. bari na lu ñuy jàmbat fii problème man sentir ma ko sax. <laughs> ndax yàlla la ci bu yàgg. yàgg na yàgg na yàgg na. yàgg na. moo tax moo tax sant ko gërëm ko rek. Mm-hmm. ak di ko bàyyi ndax daa ngeen faral di jaxasoo guddi di waxtaan. bu baax guddeeg bëccëg moom waxtu ma ne lay woote. Ah. waxtu ma ne lay woote suba teel. orma ji li ngay wax ci orma léegi rek euh, orma ji mu jox sëñ bi. Mm-hmm. sëñ Saliou jóge na julli na fajar fajar mm-hmm. Mm-hmm. julli jiite jàkka ji man julliwu ma mm-hmm. <laughs> julliwu mu soxla ma toog ci ëtt bi ci néeg bi ci digg bi xaw ma juróom benn koñ lañ koy wax xaw ma ah. bi nekk ci digg daal bi toog fa ba huit mu doog maa fagul te boobu yow yaa ngi nelaw maa ngi nelaw ci yow la soxla waaw ah, man la bi mu ñëwee mu ne ma asalaam bu ma jógee ba ma ci jàkka ji laal soxla waaye ngay nelaw bi nelaw yu jëlawut nag laa doog wax ñu fëgg la <laughs> ah. kii benn affaire la. c'est jox nit gëddaam mooy loolu kii xam ne yaa ko jur. yow la yaakaar ëpp nag àllaaxira. allah ne sa kër di la bi yow. nga di ko jox jooju orma. oh tot tot tot sëñ Tuubaa la dëgg la. ah oh tot tot ko jox. sa néeg bi nga dëkk nii. te moom nee ba. Mhm. wallaay soo soo gan yoon bu ko fa dal. Mhm. boo fa néew duñ ko ubbi. dala cee xaar dala cee xaar jox la orma. benn affaire la. sëñ ah, waaw beneen ah, affaire la beneen affaire la <laughs> dëgg la euh, jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Hamza ba tey am na solo lool ci nit ñi xam dëgg-dëgg mooy euh, kan mooy sëñ Saliou mm-hmm. ndax sëñ Saliou sëñ bi daana jëfandikoo wàllu baatin. da da nga mu sës de. pour mu génne baatin. baatin ah. da nga ko ba mu ñoq rëkk rëkk rëkk da caa nay. <laughs> na gaa yi ay xuraafaan la ñuy wax dara du dëgg. ah dañuy wax rek lii ñu nettali ci sëñ Saliou ñuy wax du du xam nga ku amum xel euh, doo jëfandikoo batin ku amum fit doo jëfandikoo batin te seen digg ak seen borom ak seen digg ak sëñ Tuubaa dañu fa xam dafa doy xel doo ko jëfandikoo ku amum fit doo ko jëfandikoo dëgg la de xel mu rëy ak fit jëru jëfandikoo batin di ndax ko ragal rek <laughs> wala da dañ koy ba mu denc ko mhm. denc ko ba ba ba suñu borom xam nga li ko sëñ Blaat waxee nee na batin mi ngi mel ni Euh, ñu jox lay bal. bal yuy dóor gaynde boo rombee lëg dóor ko ca ba kéwél boo gisee gaynde nooy def. fe jeexali bal jeexali bal. dëgg la de woo da ngay denc say bal ah? ba ko jar dëgg-dëgg ko ci ah. Mhm. daanaka ko waaye xam naa ne par asa lay doon rek. Hmm, da sës dëgg daal. ñoom dañoo mat matale. Hmm? Mhm. Eh, jërëjëf. jërëjëf léegi nag léegi nag xuraafaat yee bari. nit ñi itam nit ñi itam dëgg. dëgg la ndax euh, sëñ Saaliw jàmm yàlla doon dund. ak la ngay joxe. ak ak tarbiyee gu gu mat sëkk. Mm-hmm. nit ñi bëgguñ ñu waxtaanee loolu. déedéet xuraafaat yi la ñuy wax sëñ bee ma jox tur sàngam sëñ bee ma gas loo ren sàngam sëñ bee ma def nangam sëñ bee defal diw nangam sëñ bee defal diw nangam. sëñ bi daal di joxe ay tur yi yàlla yi. <laughs> ak a ceen ay. <laughs> bala nga jot xaw a dee. <laughs> man la ma ci amee ko su néew mosuma koo laaj nag. moom mm-hmm. mosuma koo laaj. Mm-hmm. waaye lu ma ci masaa jox xanaa def loolu nangam ma noppi joxaat la ko. Hmm. lu def ci kër gi wala def nanga ba noppi ne la jox naa la ndigal nga def ci mas naa ñëw li tax nga xam ne mu ñëw loolu muy bind buy buy dem di ko jéggi hmm. mu ne ma daa ko def ma ne ko ah déedéet nag ma gis naa waa kër gi ñëpp nga ko def waaye du leen jëriñ dara waaw ne la digal naa itam su ma jógee nag su ma su ma jógatee ba dugg jot ba nga faral ma ko waaye yow jox naa la digal nga di ko def nga xam ne gars yi dañ ko jaar royoon rek ah, waaw ah loolu la waat loolu la waat xam nga day gëstu di xam hmm? dëgg yàlla moom ma ko wax ma. na xaw laa ilaaha illallah. oh tot tot tot jërëjëf mm. jërëjëf euh, sëñ Hamza jërëjëf itam yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp seen télévision Lamfal TV kon day mel ne euh, bëggoon nañoo xam nag sëriñ Hamsatou euh, ci yan jamono la la la la la la la ko sëñ Saliou gërëm. sëñ Saliou de bu ma bu quatre onze laa wàcc. at mi fi at mi nekkee xale ba ci déwén si. Mhm. la ko nekk. 90 la ko nekk. 91 mhm. nga jàpp na man ñaari daara rek laa def njuróol ak njàpp njàpp mhm. ah. njuróol njàpp na la def maag sëñ Cheikh dañ la bokk benn bis maa ko woo mu ñëw mu ñaanal benn jotaay bis boobu la sëñ Xalil di tarbiyo gi di dem daara moom. sëñ Xalil mu sëñ mu sëñ Musaab sami. ah bi ñuy wàcc. bis boobu <laughs> damay wàcc muy yéeg. allahu akbar. boobu damay wàcc muy yéeg. kon sëñ bee jékki-jékki woo leen na leen. ma waaw man kii sëñ Cheikh ne wal ma sëñ Cheikh bu ngoone ma dem fekk sëñ Cheikh ma ne ma yàlla na al itlaq yàlla dégg wàcc sëñ Cheikh lagat ba ma ko waxee loolu la wax boobu <laughs> de mel nañu <laughs> yàlla dagal ma dig moom Allahu akbar <laughs> eh, yaa ngi nettali addiye addiye joo jox Cheikh Abdoul Ahad hmm. ndax boobu fekk na la nga dem Touba dem xelkoom wala dem goo xelkoom xelkoom mosoo faa ne moom xelkoom xaw ma njàpp na njurul damaa yónnee xelkoom rek may waxtaan ak doog yaay nekk nekk ah, mosoo faa nekk damaa Mhm. sa diggante ak sëñ Abdoulaye bëggoon nañ nga laal fi tuuti doon nga ñu nettali mel na ne am nga fu ngeen jaar. lan wax ci addiya ji doon jox kan. Eh, addiya doon jo doon jox sëñ Saliou. sëñ Saliou sëñ Saliou man sama addiya ma laa ko daan jox. ñi nga daan bay. ñi nga daan bay ak lu masam sëñ Abdoulaye mas na wax daal benn bés boo xam ni mooy 1984 la yaakaar naa moo jumale wala 85. boobu sëñ Fallou son bu muy tey ak sëñ Falloum sëñ Mourtada. Mhm. ak sëñ Mor May ñoo doon la sëñ bi laa doon jox ay soxna fii ci kër sëñ Tuubaa kër kër boppam gi. Mhm. sëñ bi laa toog ci mbaar mi tasaare ay fulku ak xas ak ak alxuraan ñu koy jàng. Mhm. ba ngoon jotee mu woo Cheikh Gouba yaakaar naa ak Bara Ndiaye ak sëñ Cheikh Seye loxo yónni ci yónni ci nun mhm. ni damaa bëgg bu ngeen demee ngeen ne ñoon ne kenn ku ne seet la mu gën a fonk yàlla mu jox ko sëñ Tuubaa ngir mën caa sukkandiku bu dimbali ko tey ak ëllëg. ne seet la mu gën a fonk ci alalam. mu jox ko sëñ Tuubaa loolu la wax la mu gën a bëgg. man boobu yoruma dara waaye toolu basaab laa ba bayoon ma wàndeel ko laat jaxate ñaar fukki ni jox ko sëñ Saliou laat jaxate moom sëñ Saliou jaxate moom moom moom laa ko jaay ndax naa ko sax na ci <laughs> ndax mooy at moom ñuy commencé bay bisaab bi <laughs> loolu nag mu rëcc sëñ bi lool sëñ Saliou waaw rëcc lool ah yow joxoo ko sëñ Abdou Lahad sëñ Saliou nga ko yëg sëñ Saliou laa ko jox moom laa yëkkati naga laa mhm. sëñ sëñ Saliou dama sëñ Saliou dama ko musal rek moo amee dama koy musal waaye li ma am soxla sëñ la danaa ñëw ci 86. bi mhm. ma jëkkee bay. Mhm. léegi bi ma ko joxee sëñ Saliou mu ne gannaaw bi nag comme njaxat laa nekkoon mu gis soxna tuuti jaxate kii leen wax naan am sa di bett na ma la daam positif ndax ma di yoo daal a mën a jëlee. Mhm. Ah, la. <laughs> waaye comme lantanaa loolu bi rek xataa tuuti ah, ma di ko nag bi ma bayee tool. yàlla dogal ma bay tool boobu laa sas soldaaru beral. juróomi bërigo benn rek juróomi bërigo gerte rek laa bay muy téeméeri bërigo gerte. juróomi bërigo kermb. maag sëñ jili mi ñu soon tool ak alaj bi sa ak sëñ talaa mhm. sëñ talaa bayoon na fukki bërigo moom ëppoon la mu jiw waaye du soon la man ma am diitoon kon xam nga daanu ma dëgg la <laughs> waaw loolu nag xaalis ba nag dama ko fab jox ko sëñ Saliou yàlla mi dara tawut ma am tool bu ñu ma bàyyi loon seew tool àllarba ñi xam na sama taalibe ne woon seew mhm. àllarba yaakaar naa ñaar fukki junni ma dem benn jox ko sëñ Abdou Lahad waaye li nga bay moom sëñ Saliou nga ko yor waaw sama bi waaw àll la ma jox ko sëñ Abdou Lahad waaw mhm. lii sëñ Saliou laa ko jox lépp li mhm. sëñ Saliou laa ko jox waaw dëgg ah, man te gi laay ko la <laughs> moo tax sëñ Saliou euh, sama diggam lu fi ma saaw dañuy leer dañuy leerante discuter comme moom dema ko dal waaw moo tax dema ko dal sëñ Saliou mooy kilifa gi nga xam ne nangu na ngeen bokk toog yéen ñaar discuter bu la tooñee ne la baal ma boo ko tooñee ne ko baal ma waaye ak modeste ak wayefam xam nga àdduna mooy moo moo demee noonu. dëgg la. bi ma joxee tool bi si yëpp du ca belal mu ne ma am surtout foo jëlee xaalis mu ne ah xanaa sëñ Tuubaa rek. mu ma ko yëkk delloo ma ko ni dama laa bëgg a dimbale de. sëñ ko waaye rànd na fi ñëw suba. boo demee. xaalis bi jox ko Baara Ndiaye mu ubbi la sama néeg nga fanaan ci. mu ubbi la sama néeg wallaay nga jënd nga jënd nga jënd nga jënd nga jënd saaku mburu akum xar mm-hmm. ak keesu boisson te bu bàcc gi bu suwaa bàcc gi indi ma dama la ci faagul àgg ci ndox kon laa ilaha illa allah o to to jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi topp seen télévision Lamfal TV ñu am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bi nga xamante ni bii ci la ñuy fàttaliku euh, sëriñ Saalihu Mbàkke euh, jàmbaare lislaam jooju toog ak sëriñ Amsatu di kenn ci ay taalibeem waaye di kenn ci ak njabootam euh, ñu waxtaane rek jikko yi sëriñ jikko yi nga xam ne mooy tedd ngay jikko yi nga xam ne yàlla defoon na ko ci moom ñuy jéglu bu baax a baax ci li fi jaar léegi kon sëñ bi ñu ñëwaat rek xam naa ne mel na ne rek am nga fondation Eh, yaa ngi doon ñëw nag ci at mi nga amee ngërëmul yàlla nag ndax boobu nag da ngaa daal di libre nekk ci sa bopp mm, wala yaa ngi am yeneen yooyu daan seq ak sëriñ Saliou di ko liggéey ak moom. dëgg ma bi mu fi mujjee. Mm-hmm. ndax ba mu wàccee daal ma bu leen fi gëj atte wàcc la waaye soppu liggéey la. Mm-hmm. am na bis boo xam ne daf maa takk sa weeru takk sa soxna ma lool. ba mujj maan ko sëñ ndax man nag maa delloo waat ci daara ji mu ne ma jóge ko ci kon da nga ciy jóge li ma wax keroog nga xam ne fan yooyu dañ takk sareet rek waaw waaw mu ne ma jógee ko ku leen da nga ciy jóge jóge daal di mhm. mu rëdd wàcc loolu ma wax keroog mhm. boobu bataal jaxate nga xam naan xaw ma lu mu doon wax ah ñoom bëgg ñu boole leen ci wax ñoom bëgg <laughs> bëgg dugg ci intérêt boobu ndeysaan dëgg la waaw loolu wax kon mhm. li tax man la àllarba ji bi nga xam ne fukki fa ak juróom la ci teg wàcc liggéey. Mm-hmm. sama kër laa toog Saal Jaxate mii ma woo téléphone ni ma kaay wuy sëñ bi Saal Jaxate mii. Mm-hmm. ma ñëw Cheikh Bas fa laa ko fekk keroog mu sëñ Abdou Khadir. Mm-hmm. bi toog di jàng mu ne ma añ naa ci kër ga mu ne ma sa wax fii kay daa wax. fii dem añu ko ma mu ne Saal Jaxate yóbbu ko ci néeg bi ko wañ mu tegal ba xaar ban kese. booba Sall mi sama doom bi mu laa fekk nag kay wétali ma waañ ba noppi mhm. bi ma ñëwee nii rek la def fi muy jàng loxo bi dugal nii ci ron canapé rek daal di may jox ak ñaan muy fii tey jii muy fii waaw na ci fas ak tàmbali bisub tey mhm. ci kër gi ak jumaa ji keroog laa ko mu gis tey na nga ci fas ak tàmbali àllarba jooju boobu laa muy barab bi nga nekk mu ma xaral as naa fekk waaw fekk ci koor gi comme mhm. koor nii tey damaa waajoon bay dem Italie te tàgguma ko Mm-hmm. bi ma demee ba Italie tàggu ma ko ma tàggu ko damaa dem ba ba ba ba ah, tàggu naa ko ndax maa da koo fàtte tàggu naa. Mm-hmm. damaa dem ba Dakar. mooy mm-hmm. topp sama kër ba alxames laa war ba dagg bee mu diggay woo ma téléphone ne ma am sa man foo ne ma ne ko maa ngi Dakar mu ne ma sëñ bi dalaa soxla waaye mën ngaa bàyyi ba alxames alxames laa waroon dem mu bëggoon a gont ñëw mu ne mën ngaa bàyyi ba alxames daal di nag mën na laa ñamal ci lim lay doyee tuuti. daa bëgg délégation bu muy sàkk pour ñu waxtaan ak doo ngay xel te bëgg nga jiite ko ma daa ñëw sama ité bi ma ñëwee fekk mu duggee fee mu ne ma moom laa jëkka ñëw ko ma wax mu ne ma sëñ bi de foom mën a ndax ñax ma daa bari loolu mu bëgg nag ba bu mu gën a féex ak yooyu nga dëgg dem hmm. waaye nag mën dem nuyu sëñ ma dem nuyu sëñ ma ne ko mu duggee de ma waxoon woote bi bi ma ñëwee itam mu ne ma dangaa foom mu ne ma yow de foom ma dangaa war a dem yow foom ma dangaa war a dem nuy waxtaan ba deux ci guddi. waaw ma rocc ko ñibbi. Mhm. <laughs> loolu xam nga koor la. Mhm. koor ga siyaare dinaa ko. Mhm. koor ga sax ba ma demee bi ma koy siyaare ëllëg ñu ngi laa àndal fa laa fekk sëñ si dëkk sëñ Mourtala. yaakaar naa eh, eh, du boobu boobu loolu la jiitu ndax sëñ Mourtala boobu wàcceeku liggéey. damay jaawale koor yi du boobu. booba daam ko ma doon jaxaseeg sëñ bi ci pàkk yi ma joxoon fee ca ca saam mm-hmm. bëggoon ko Modou Fall mm-hmm. bi ma nuyoo sëñ ba noppi sëñ bi ma nuyoo sëñ rek sëñ moo laa ngi toog sëñ si ñuy dem mu ne am sutu ma ne ko mbàkke mu ne ma la ma la dara soppiku ci de sëriñ si ci kanam taalibe ci gannaaw rek sëriñ si ci kanam waaw taalibe ci kanam bokkee ci kanam taalibe ci gannaaw bi may jógee dem mu waa ji daf ma chef bi dab ma ni ma bëggoon naa kat kër sëñ bi jox fee nga ñëw ñu leeral ko ndax daa am ñu ma ci joxoon xaw ma la nga joxe ma ne ko ah ma de sëñ baa nga ne waxuma ak moom ci pàkkale xaw ma la xew waaye daal nee ma. Hmm. dama la waxoon bi moom mosuma ba ma ko sëñ Blaat jébbalee ba ba tey jii. Hmm. teqali ko ak moom. Hmm. mel déggoon naa nga doon wax naan ñaanoon nga ko mu doon sa sëriñ boo ko gisee boo ko noppee gis. waaw loolu loolu 93 la 93 laa ko fekk njurul gi keroog sëñ Modou Moussa Dieng damaa muy génn. muy jamono élection yi. ba dama laa soxla woon te la ma ne ma tase nga ak sa kilifa gi ma ne ko ci mun ma sëñ Modou Moussa Dieng. fekk naa mm. waaye xamee ma. Mm. mu ne ma daa ñëwoon di ma laaj ñiy xëccoo réew mi. Mm. fan laa jëmale sama kàddu ngir mu yëkkati kàddu mu jëmee foofa. Oh. ma ne ko fu la neex jëmale sa kàddu ndax mboolooy wut mhm. te lenn la ñuy wut mhm. te kenn ko mën a am te naa ko ñëpp maa ngi ñaan ki gën ci may mu ne mboolooy wut te lenn la wut te lenn la ñuy wut kenn ko mën a am mhm. te yéene naa ko ñëpp ay mbooloo mi ku ne ku ci ne sama mbooloo nga fa oh. kon nag maa ngi ñaan ki gën ci réew mi suñu borom jox ko ko mu màndu ma ne ko nag bi ñu fi ma ko nag daa am lu ma bëgg lu ma la soxla mu ne ma loolu la ma ko deme daa am loo ko mënul mu ne ma la mu ne ma gisatoo sa sëñ di jokk ci keneen damaa bëgg a yem yow nga ne ma soo ko defee dana neex si laat ma ne ko bëgguma ko neex loo neex laa ko lan la demee nga ne ko su ma la noppee gis damaa bëgg daam damaa am lu daa am lu gars yi man te mënuma ko mënu lool ah gisoo sa sëñ di jokk ci keneen man damaa bëgg yem ci yow nga ne boo ko gisee boo ko gisul mooy doon sëriñ laa ko wax waaw tolluwaay la rek alhamdulilah <laughs> tolluwaay <laughs> tolluwaay la waaye sëñ daal daa waxoon ni mm, boo ñàkkee sëñ suba bu bu takkusaan jot amoo ko boo ko ñàkkee takkusaan guddi itam bul xëy te amoo ko dëgg la dëgg la dëgg fi mu toll nag ki fi nekkal sëñ daal mooy sama sëñ allahu akbar muy sama fi nekkal sëñ Saliou <laughs> di sama baay di sama mag di sama xalifa di sama sëñ di sama sëñ di sëñ Abdoulaye di sama baay di Sidi di sama mag. macha allah eh, sëñ sëñ bi bëggoon nañoo ñëw tuuti bala ñuy jeexal émission bi. Mhm. da daa mel ne dañoo wax ne sëñ Amsa bi mu nekk ci daara ji mënoon naa woy daa mel ne nag ci wàllu xasida fii nit ñi toll xasida demoon nga ba amoon ci tolluwaay. Mhm. bëggoon naa ñu ñëw ci tuuti maanaam ci njàngum xasida demoon nga ba am ci tolluwaay. xam nga tolluwaay dafa moo ko am na jamono yoo xam ni daanaka ma faatiwul bis laa defoon ab sëñ. ma bi si yi waaw jamono yooyu boobu mooy mooy yi xew ab tolluwaay la boo ko wis danga koy <laughs> boobu daana ji difay daana am na way yoo xam ne maa ko waxoon yaqulu hamsatu bni abdul ahadi mubtadi an bi hamdihi li samadi mubaayihan li seyqihi mujaddidi bi qalbihi saakir rabbin waxidi qumtu mubayinan fawaida xasid mafatihal bisi li muctanin murid mhm. wala asaalu xaafir asaari li sil xasida taalibi asaari loolu ma maa ko wax yooyu yàgg na boobu bisri ngay way boobu boobu bisri laay boo dama dama doon def tawasul ci bis sax mel ni ku jébbalu ji moom jamono yooyu <laughs> boobu boobu mafatihal bisi li nga daan jàng boobu waaw ak jaalibut laa jëkk jal ba daana toog benn benn jotaay jàng ko sept fois ci benn jotaay ba may ne jaxat di jàng xam-xam sept fois soxna may laaj mi daan bu ñaan am sa dana dof c'est ko jiba tous <laughs> ah ah jamono waaw daa ko jàng sept fois par benn jotaay nii rek mm-hmm. hmm? ndax ndax ndax kon way ci Mafaatihul Bichri rek nga ko def waa daa nga def yeneen way sëñ Saliou sax def naa ci way am na waan xawsun la naa xat ataa min nasli ahmad man lawlaahu lam yubdali diinan wa iman mokkaltuma ko sëñ Saliou laa ko tawoon xawsun lana qad ata min nasli ahmad law laahu lam yubda lii diinun wa iman am na woo xam ne am na benn yoo xam ne maa ngi wax naan asqatu dam an li sawqi waxdata waxdatal ulama box daan li tafriqihim ndax way bindoon nga ko waaw jamono bi doon naa ah, ko ah, mu defoon ci diwaan bu xaw a xawoon naa rek ay bari la. Ah, yoo xam ne yëpp yaa ko dama ci daan tooyante way way xasal ak tooyante gi ni ma def ci gars yi. sëñ Bass Sadio moom. Ah, sëñ Basum sëñ Saliou ah, ah. am na am na yu ma ko daan def yu bari di ko di ko tooñ te mhm. xasante ka tooñante mhm. ak Saalum Saalum sëñ Modou Seng ak mhm. <laughs> loolu loolu loolu tolluwaay la <laughs> toll jili mi defoon naa jooy salaamun jasimun wa asat habir bi tiibin tafooqu nasimal alil faya abdu xusmin xubaydin kal uyut fa xumaysan fanaa fil jëlil sëñ jilim sëñ Laat ah ndeysaan <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan eh, eh, ginnaaw nag bu sañ am sa jógee ci daara jéeg yooyu yëpp na sëñ am sa daa nekk am sa baykat wala am sa businessman wala am sa tukkikat wala am man am sa business moom du sama affaire mosuma ko ma ko xamoo business business xaw ma ko jeex na ma ko def kenn ma ko dàq ndax sañ sol mbaxana yu <laughs> yor oto bu de ah, wax nga de ah. Ah, waaye boo mën a fen doo mën a business da fen mënu ma c'est te te te te wax lu dëgg. ah dóor dóor dóor dóor waxut ah. léegi am am sa fan la teg njëriñ nga xam ne mu fii la jëm. am sa daal moom la bàyyi mu bëggoon ci moom fii mi ngi dund mi ngi koy jëm. oh ka la mu bëggoon fii mi ngi dund mi koy jëm fii mi ngi ànd ak sama soxla. Mhm. waaw. Mhm. ñooñu daal laa bëgg a doon bëgguma doon keneen. Mhm. waaw. am sa ndax dana yëngu ci wàllu politique. mukk ci àdduna xaw ma ko xam nga politique moom. waaye man euh, li may wax démocrate la nit ku ne la mu gëm dama ko ciy bàyyi la ma gëm ma nekk ci. très bien ça. politique aramut. Mhm. doxalin rafet mooy politique. dëgg la. loolu nag ñiy bokk Sëñ Tuubaa te xam. Mhm. te xamee tey ndaw tollu ci. dañ ko mhm. war a def. dañ ko war a def. ngir sowe taalibe Sëñ ngir sowe dëkk bi. ngir sowe réew mi. ndax. bu dee sëñ Tuubaa nekkee ci yow da nga bañ. Mm-hmm. da nga gëm dara. Mm-hmm. te war nga am positif. dëgg la te taalibe war na laa jaral lu ne. Mm-hmm. politique nag ngir defar taalibe yi. mooy la am njëriñ sëñ Fallu politicien la xam nga kon baax ci sëñ Fallu la yem. dëgg la sëñ Blaat politicien la dafa baax ci waaye seen politique nag defal sëñ Tuubaa dëkk bi tax ñu doon politique. dëgg la sëñ Blaat nee na politique oh. njaboot gi nag ci loolu la ñu war a def waaye bu dee lu nekk ci sa poche sëñ Tuubaa jox lu def suñu poche kat. dëgg la dëgg la. sëñ am si daa mel ne am na waxoon naa la sànq nee naa sëñ Sall ne ma am satu yëngatu woon daanaka ma ne koo déedéet hmm. ne ma digal naa la nga di ko def waaye nag li ci bon mooy nga dem ba fàtte sa bopp seetu buñ xoos gannaaw ga boo ci taxawee doo gis sa bopp dëgg la dëgg la boo bàyyee sa ànd dem ci leen nag foofu ngay mujj dëgg la hmm. gis nañ ne sëñ am satu hmm. eh, créé na wala boog jot na ndigal ci def daayira bu toll ne xuddaamul xadim mhm. am eh, boobu bari na coow mhm. suñu am sa toog na ci ak président ñaari yoon audience boobu lan moo ko sababoon audience bi man sàkkuma ko ñoo ko sàkkoon ah sàkkuwoo ko woon déedéet ko sàkkuma wax dëgg yàlla sàkkuma ko te duma ko sàkku tamit mhm. waaye nag booy liggéey ci mbir te am ko xam wax la muy maître Khassimou Touré moom waxoon tegoon ci yoonu àdduna comme dañu ne ëtt nag dañuy def yëfi àdduna mhm. ni nekk fi di coow ku ne wax naa nga amul njaay mhm. da def association boo xam ne euh, dawaayir yi kii association yëpp dañuy àndoon benn mhm. bu ko defee xuddaam jiite ko may ma dem si avocat parce que moom nee na ni mel ci avocat yi noonu la xuddaam mel ci yoon wi loolu la waxoon ne ma da bind lettre yii nag nga bind lettre euh, président bind ko Euh, premier ministre. Mm-hmm. bind ko l'intérieur. Mm-hmm. bind ko justice. Mm-hmm. conseil de la république. ak assemblée yëpp bind nañ ko. fu nekk lettre xu daam dem fu ne dem fa. lañ ko jox yëpp moo ko yóbbu. président tontu nañ ca euh, euh, lañ la mu wax tontu nañ ci wax. ànd ak noonu ci liñ bëggoon. jot na fi téléphone sax baan ma ci affaire yooyu naan ma attaqué tàmbalee ko Touba wax yooyu. Hmm? Euh, wax nañ ci yooyu. Hmm. boobu nag li ñu bëggoon mooy lii li ñuy wax Serigne Touba. Hmm. di ko teg diine ji muy sallallahu alayhi wa hmm. te ñooñu ñu ñu sori sikk. seet wecc weex tàll. ñu bëgg caa defe taas. te ñoom ñu far taas yooye ñu war ko mën a far farle na ko. kuñ teg kuñ jàpp kuñ ku def lu naka su noona suñ la porté plainte du mujj fenn. te ñoom ñooy àtte. ñoo yilif ñooy atte mhm. loolu taxoon ñu soxla ngir ñu jàppale ji ndax assurance yi dañ ko wutal ay kayit mu doon kayit mhm. ni war a réew mi war a doxee am récépissé am loo xam ne nag ñoom ñoo ko mën mhm. soo gisee may samay xeer di saf lool la ndax da ngay dégg loo xam ne doo ko mën a dégg te ñoom suñu leen ñu wax ko ci sa kilifa wax ko ci sa baay wax ko ci sa sëñ te ñoom suñu leen ko waxee ñu jàppaleen suñ ko waxee ci ñoom ñu jàppaleen te buñ ko waxee sëñ bi ñu bàyyi lii moo may naqari waaye ñu bari dañuy jàpp ne sëñ Amsa bu toogee président wala mu gis ndawul président mm. jox nañ ko dara loo xam ne mën naa tax sëñ Amsa duutu wax ba dinay tukki ba dinay tukki mm-hmm. mënuñu maa tee wax bu fekkee jàdd nañ ci yoon <laughs> mm-hmm. teraanga ju ñu ma defal sëñ Tuubaa man toog na ma ñoom semaine bi na ma ak wax naa ko ne ko bëgguma oto bëgguma tr bëgguma xaalis mm-hmm. bëgguma suuf ndax sëñ Tuubaa jox na ma ko bëggoo oto wallaahi alxasim laa ko bëggoo xaalis bëggoo suuf waaw seere yaa ngi fi fël fa laanal ma koy wax Sall Mbackeem sëñ sëñ Baara Mbacke. Mhm. ak euh, Mourou gi. Mhm. man bu may gisee ñoom ma kutal ziar du ma ànd man dong. dëgg la. ndax mën na si daal tuumaan. am na bi ma koy wax tam bas bas bas xaadim aw baa ngi toog. Mhm. Hmm? ak xaadim bu sax ak ko ma kan man li may wax day leer nañ. Hmm? dëgg la nga leen bëgguma suuf. bëgguma xaalis du kër du oto du suuf ndax sëñ Tuubaa jox na ma yëpp. yoral leen nga leen bëggal. boobu boobu bu ma toogee ak ma kitam moo moo ma moo ma moo ma wax ne ma commande naa la oto ma nga Dubaay Dubaay la ñu fi 15 jours la xasim bi ma ñëw sama sëñ Sidi laa ko wax ne ko mi ngi sëñ Sidi ngi ma dégg ma ne ko ñaanal bu ma jot. ñaanal bu ma jot sëñ laa ko waaw dégg na waaye ñaanal bu ma jot <laughs> mu ne ma ko <laughs> mu ne kon doo jot. allahu akbar allahu <laughs> akbar kon am sa dafa bëgg am indépendance. total. Mm-hmm. waaw total. sëñ Saliou bëggul ñuy ànd ak ñii. bëgguñu ñu topp seen gannaaw. bëggoon ngeen di ànd ak ñoom. di dox bëgguñu ñu topp seen gannaaw. Mm-hmm. Hmm? waaw wér na lool. <laughs> Musaalax nag jàmmonte nag mën naa ak moom <laughs> dëgg la ñu ne ci la ñuy def ngay def li ne lëkkum dina ko wala yéen daal mën naa nekk. Hmm? Mm-hmm. waaw. dëgg la mooy loolu la loolu laa gëm. Hmm? Euh, bi nee bul yaakaar ne yow dong la nee na da ngaa am wéttal. sa ginnaaw alhamdulilah. Uh-huh. kon kon bëggoon nañoo xam uh, yan kàddu la sëriñ am say yëkkati dénk ko uh, njaboot gi ak ndaw ñi nga xamante ni bii ñu ngi tuddoo sëriñ Saliou uh-huh. wan melokaan lañu war a yor. Uh-huh. sëriñ Saliou daal daal leer nañ nekk fu nekkul fu nekkul fu lëndëm fu taas foo xam ne doo mën a gis newut ci lëndëm. newut fu poseer tamit. dëgg la. ci liggéey la nekk ak jaamu yàlla. ak maandu ak mën a dimbalee tey dimbalee ndax mën ngaa dimbalee dimbalee ndax ku ne gis na lim fi tabax ci jàkkaak ay jumaa ku ne gis na lim eh, tool yi tool yi tool tool tool yi yim sos kon nag ñim yar te yar leen ci loolu dañaa war dellu ci loolu te bañ a bàyyi nekk ci taax yi di wax naka sul noonu wala ne ci bitim réew di wax naka sul noonu di tuumaal sëñ bi nitug yàlla moom ma ta tuumaal te nun noonu jikkum waaye ñoom ñu ngi jàkkaarloo man mm-hmm. ñoom mm-hmm. waaw ndax fi mu nit ki bu waajuram génnee àdduna lépp lum jëf naka su noonu dañ ko koy wan te boobaa bu koy gis day mel ne ay xaytu yuñ ko yuñ koy yuñ koy moo tax kon jëruñoo fenal mm-hmm. jëruñ itam nekk def naka su dul noonu dëgg la ihmalu fasiyallahu ahmadukum rasul wal mu'minuna wasatoodo ilaa alim xayb wa kon jëf leen lu baax rek gannaaw boo jëf yàlla da ko gis yonte bi gis say waajur du ko gis kon defal lu baax te bañ koo fenal la bañ koo uh, sosal bañ koo dural bañ koo tilmal sëñ Saliou daal taalibe sëñ Tuubaa doomi sëñ Tuubaa la ko doon lëggéeyal ci anam yëpp ba jóge fi macha allah bàyyi fi njaboot gu matuk njaboot yal leen fi yàlla yàggal te wér sañ amiin sëñ Cheikh sëñ Moussa ñoom ñëpp. Mhm. ñu baax lañ. Mhm. ñu bëgg lu baax. Mhm. te liggéey sëñ Tuubaa. kon nag yàlla na fi yàlla yàggal. amiin te wér te gën njaboot ga yeeg ña nekkul ci lu noona ba jógee ci nekk ci li sañ bëggoon alhamdulilah nekk ci li sañ bëggoon yàlla saxal leen ci rey leen ci dundal leen ci rey leen bañ dekk ci te bañ a wuteeg moom amiin saahir na baat na di ñaanal suñu kilifa bopp nga xam ne moo kilifa ak murid yëpp muy sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te ko sigil na yoon wi sagal na ko ndax yi sëñ Tuubaa bëggoon yëpp muy xam-xam ak xasida mi ngi koy dul ba ko ne xam ne dul na ko lii moo taxawee université bi nga xam ne sëñ Tuubaa da koo bu yàgg ngir xam-xam rek bëgg xale yi xam gis nañ taxawaay bi mu ci taxaw yi tam gis nga ni mu koy dundalee fone ne maa ngi koy jàng di ko jàngalu di ko déglu di ànd ak bokk yëpp ñu koy déglu loolu itam liggéey bi am solo ndax dana tax ndaw ñi bëgg lu baax ba noppi bañ lu bon bokk itam moo waroon a gën a diis ñëpp waaye moo gën a woyof ñëpp lu waay xewle mu jóg def ca lam ca war a def bu réew mi tàngee mu yëkkati kàddoom ba réew mi sedd kon kooku fonk na taalibe yi Sëñ lool fonk na réew mi lool waaye fonk na jullit yi tamit lool li muy def xàmmeewu ci xeej ak seen ku yàlla baaxal la ku yàlla dimbali la loolu maa ne yaa man taxaa yaa raisal akrami na maan <laughs> bar lu bar teraanga de bar na mooy suñ njiit ci ci baax mooy suñ njiit ci taalibe mooy suñ njiit ci diine ji mooy suñ njiit ci suñ waaw ah. <laughs> te yaaman bi am daay tànnil bësaru bësaru jëm daanaka xaw naa laal ci bës rek <laughs> kon moo ne andil mbégte mi daal ah yàlla na fi yàlla yàggal jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi yi doon top seen télévision Lamfal TV ci seen jataay bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ñu aris ko tey jii ci alxames euh, tey jii ci alxames yi ak ñaar fukki fan ak euh, ñeent wala ak ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ci kër Serigne Amsatou Mbacké gi nga xam ne moo nekk ci Makharul Azna ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ki nekkoon ci micro bi moo di seen mbokkum taalibe Fallou Gala Sylla ki wàllu ci machine bi di Alhaaji joxaat leen rendez-vous ci beneen jataay incha allahu rabbi yàlla yàggal fi Serigne Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa ak mbooleem rakkam yëpp yal na yàlla nangul ñu sunu koor wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بسم الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الله في الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا تري